màggalug Touba 2020 màggalug di bis bi nga xam ne moom la ñuy màggalal Serigne Touba Xaadim Rasul moom mi nga xam ne moo waxoon ne su bis bi dikkatee da nga ma ci santale yàlla sunu borom subhaanahu wa taala looloo waral nag mbooleem taalibe yi mbooleem soppe yi ak xarit ak am di jàmm fu ne lañ bàyyi ko dëgmal dëkk bu sell bi di Touba ngir amal fi li nga xam ne rek mooy boobule bis boobule mbégte amal seeni ziar ak seeni barkeelu ci dëkk ànd looloo waral nag waa fédération Nourou Daarayni di soppay Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir amal fi ab ziar bu am solo doon ko amal ci kër Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir bi nu xëyee nag bi fukki waxtu ak benn jotee amal nañ bu am solo waa fédération Nourou Daarayni di soppay Serigne Bassirou Mbacke Serigne Abdoul Khadir fu ne waa jógee na fa ñëw ci dëkk bu sell bi di Touba amal ziar bu am solo ci kër Serigne Bassirou Mbacke Serigne Abdoul Khadir ci ñiital Serigne Cheikh fay bu Touba Toucar ak Serigne Saliou fay bu Touba Jàkkeel ak mbooleem membre yi nga xam ne ñoo bokk ci kuréel googu di Nuuru Daarayni di soppay sëriñ Basiru Mbàkkeem sëriñ Abdul Xaadir góor ak jigéen mag ak ndaw soppe ak xarit ak am du jàmm fu ne waay jóge na fa ànd ak ñoom ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal sëriñ Basiru Mbàkkeem sëriñ Abdul Xaadir boobu la siyaar nag amal nañ ko talaata fukki fan ak juróom-ñett ci mois de safar atum 1442 dëppoo ak juróom benn fan ci mois de octobre atum 2020 waa daayira Nuuru Daarayni di soppay sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir bi ñu demee ba ñeenti waxtu jot nag sëriñ bi dalal na leen saafonte ak ñoom ñaax leen dolli leen ñaanal leen waa daayira Nuuru Daarayni di soppay sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir baax sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ yàlla yàggal ko fi lool tamay ko ak wér ci barkeb Seexuna Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ginnaaw loolu nag waa daayira Nuuru Daarayni di soppay sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir yëkkati nañ ay kàddu ci kanamu sëriñ bi bi nu paree nag bi yëkkati na ay kàddu muy kàddu yi cant kadduy ñaan kadduy ñaax ci taalibe yi nga xam ne ñooy waa daayira nooru daayira ni di soppay sëriñ Bassirou sëriñ bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw ci liggéey bi ci biir kër gi sëriñ bi nag ñaanal leen ñu dellu ca liggéey bi rahmatullahi taala wa barakaatu kon sëriñ bi ñu ngi lay ziyaare bu baax di la jox sa wàccuwaay bu baax di yëkkati kaddu ya nooru daara ni ci njiital fédération nooru daara ni bu Cheikh Mouhamadoul Bachir ànd koog soppee ak xarit y ak di jam yëpp di ñaan yàlla sunu borom bokk ak yow bésu 18 safar bi nga xam ne dañuy ñaan yàlla saa buy waaj rek sa soppe ak sa xarite ak sa taalibe dootuñu gis lenn lu lu ñëw jànnoog yow ci sa liggéey bi nga xam ne ñëpp a ci am yéene xëy na dañuy ubbi nii rek na dafa am taalibe boo xam ne da cee amoon acte boo xam ne mu tax mu jege fu xaw a sori ba dugg ci waxu daayira bi dinañ wax li nga xam ne moo tax mu ñëw sa taalibe la tase woon mu doon koo xam ne day jaayu euh, saaru ndekki euh, mu ñëwoon fii siyaare si la am ñaan ñaan bu fi jële woon fekk ko ca palaasam mu ñaan ko ci mu may ko ci léegi nag bam ko ci mayee mu am ca yëg-yëg lool jàpp ne ñaan boobu daal jàpp na li mu def ci ay mbiram kéemaan la daal Euh, soxna si nag bi ma ko waxee ne sëñ bi nee na kooku nee na suy ñëw Touba dina indaale xar ba dem rek mu may woo téléphone naan dina indaale xar bi yàlla dogal muy ñëw ba ci yoon bi euh, muy waaj a départ xar bi xaw ma fan la jaar bu xaaj xar bi mu dam mu ne rus naa ñëw Touba ci li mu waxoon defu ko na xar bu dam deesu ko yóbbu nit mu yëkkati juróom-benni junne ne ndox moomu nga xam ne sa taalibe nga ko ñaanaloon mu am lam ca def jàpp na ne ndox moomu ba muy dund ba léegi ndox moomu lim ko fajal mësul am lu ko fajal lu mel noonu tax mu jóge fu ne ñëw fekk suñu fii ci daayira Nooru Daarayni di fédération Nooru Daarayni ñëw fekk suñu fii ci soxna Aysatu Jóob mi Aysatu Jóob mi ci moom la jaare ñëw si fii ne na da dëgg rek na taxul mu mos laa gis mu yëkkati woon nag juróom benni junne ne il faut mu ñëw bokk ak yow màggal bi bokk ak ñun màggal bi ne xam nañ ne ñaan boobu lam ko defal ba muy dund ba léegi mosul am lu toll noonu kon nag moo yëkkati juróom-benn junni yi ne nañ ko teg sa loxo nga fasal ko bu baax mooy waa ji amadu amadu Ka moo ma ko joxoon ne naa la ko jox waaw. kon nag loolu dafa doon loo xam ne deesu ko nebu te deesu ko raay raayal kon nag la ngay def ci jaam yi wax dëgg yàlla ku ne xam na ko kon nag Amadou jàpp naa noonu nga ma ko waxe woon kon soxna Aysatu noon nga ma ko waxe woon. kon nag suñu dikkee ci taalibe yi ñëw ci fédération Nooru Darayni ñëw ci daayira Nooru Darayni ñi nga xam ne ñoo ŋànk di liggéeyal Cheikh Mouhamadul Bachir di ñaan yàlla suñu borom yàlla yàgg ko fee bàyyi lool ñu yàgg ànd ak moom liggéey bi ndax ñun de ay baay faalam lañu ndax bëgguñu dara lu dul ab mbégteem bëgguñu ab namante lu dul ab namanteem ñu jaayante ci moom fos yéene yéene suñu alaaxira ak suñu àdduna yëpp ñu jël teg ko ci loxoom ñu ñaan yàlla suñu borom ñun ñëpp ñu làq ngërëmal suñ Tuubaa ci moom ànd kook soxna yi ànd kook ñëpp ànd koog xarit yeeg soppe yeeg am di jàmm yii ànd koog sëñ Alaaji Buso yi nga xam ne wax di yàlla xëj na suñu agsee fii ci kër ci kër sëñ bi yàlla ak moom moo tax kon nag Mbàkke ñu ngi lay ñaanal bu baax nga yàgg fi lool te weer xaj na yëf yi dafa xat toogaay bi dafa yàgg te liñ bëgg a wax yëpp mënuñ koo wax na lépp yow xam nga ñun xam nañu am nañu pas-pas bi nga xam ne am nañ ko ci yow bu baax euh, nekk fii di ko leeral jaru ko na nañ dox rek liñ ñaan yàlla suñu borom suñu faatuwul incha allah dañ lay liggéeyal bu am ngërëmal suñu Tuubaa ci yow te ñu ngi koy sàkku bu baax di ñaanal mbooloo mi nga ñaanal mbooloo mi ci góor ñi ak jigéen ñi ak xarit ak am di jam yëpp ñoom ñëpp ñu am taw feex ba lépp lu ñu leen naalal bëgg koo liggéeyal ñu am ko kon Mbàkke ñu ngi lay sa ñu ngi loolu bu baax a baax a baax ci yow kon nag kontaan nañu bu baax wax dëgg yàlla kontaan nañu bu baax. saytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim Cheikh Mouhamadou Bassirou Cheikh Abdou Khadir say taalibe ñoo ñëwaat te ànd ak yow bésu màggal gi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa woote woon to waxtu bu ne tamit tam saa yu ko wootee ñoo ngi ñëw saa yu ko Sëriñ Tuubaa woote tamit ñoo ngi ñëw fas yéene koo ànd ak yéen ndax amuñu kenn ku dul yow te yaakaaruñ kenn tamit ku dul yow kon saa yu ñëwee tamit tam am na lu ñu yëg ci ñun ba di ñëwaat di ñëwaat to ziar bi tey ji dafa am lu mu jaajjaas ci man ndax yaakaar naa bi ñu fi ñëw ba léegi li fi jéblu ci ay nit yaakaar naa moo su fi am bu suñu borom defaat ko sa kanam tey ji na ngeen xam ne nag yéen ñu fi jéblu tey ji lépp loo leen gis ci ñun rek kii la loo yaakaar ci ñun tamit mooma ndax laataa ñu ak ak yéen xamoon ngeen ñu démb ak barki démb kon loo leen ñu gis ci ñun rek bu ànd ak ñu fekk suñu fi kii la lu ñu fi am tamit mooma kon tamit nañu ànd ndax loo leen ci seen ci ñun ci lu baax ñu bokk ak ñu ñun ñëpp loolu daal moo ko yéen ki ñuy liggéeyal nag moo ngi nii loo ñuy jox tamit ci moom lañ koy tàbbi wala mu yëkkati lu ëpp loolu dolliwaat ko ci joxe ñu ko kon tamit nañu gën a góorgóorlu yéen ñi nga xam ne yéen ay taalibe yi ndax bu fekkente ne saa ñu jege siñ bi rek moom ngeen di mel nii day xaw a def ñuy xaw a déranger mais ñun lu ñu am lu ñu amut ñoo ngi koy jéem a jaante suñu digganteeg moom ñun daay woo nañ leen pour ñu ànd liggéeyal ko njaw Sëñ Tuubaa ñëpp moom lañ jiital ci kanam yaakaar naa boo nekkee ci kanam waroo am sikki sakka lu la war mooy góorgóorlu gën a jaayante gën a joxewaat sa bopp ñun daal moo ngi ne amuñ ci moom sago suñu alaaj mi nga xam ne moom la ñu boole tamitam amuñ ci moom sago ndax lépp lu ñu am ci moom rek moo ñu koy sant bu baax yal na suñu borom yokk taxawaay bi gën laa dëgëral Mbàkke ndax amuñu kenn ku dul yow yow lañ yaakaar adduna ak alaaxira sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa nee na mi ngi leen di delloo am nuyoo bu baax a baax waa daayira nooru daare nii ci jiital Cheikh Faye ak Saliou ak ñi mboolem mboole mi àndal ñëpp nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax nag di leen gërëm dégg nañ kàddu yu bu baax waaye xam naa ne ni ngeen ko waxee ci seen làmmiñ noonu la dugge ci seen biir xol nee na loolu yëg nañ ko bu baax a baax. nee na yëmu leen ci wax ji waaye da ngeen a jëf. ndax waxtu wu nekk seen pëstëf day yokk. seen taxawaay di yokk. ngir jëmmi sëñ bi. kon nag ñi ngi leen sant bu baax a baax. di leen xamal ne ak cant rek lañ leen ameel. ak ngërëm. nee na mi ngi leen di bàyyi ak Serigne Touba. ndax li leen war ci moom lépp yéen a ngi koy def. ba ci màggal gii. li ngeen fi indi ci ay nag bari na lool te gëju leen fi kon lu xew lu ne rek seen jëfa nga cay tab bi boole kook seen yéene kon nag sant nañ bu baax a baax waaye waxtu wu nekk sëñ Fallou ko koy jot li mi ngi leen mi ngi koy jot li seen i taxawaay ak seen i yéene ak seen pësteef kon dañ leen di ñaanal bu baax rek barke sëñ Tuubaa mu kàttanal leen leen yokk seeni i xéewal ba li ngeen yéene bëgg koo jëf yëpp ngeen am kàttanug mën koo jëf barkeb sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf